ko fal ko mu ñepp fal sopp Sëriñ Tuuba billahi yaay yi dor sax nga saw ngir def leen ay yaay ji fi man yaa ji fi yaay fi gën a yàlla jox la lëkkum jazaaka xaadimu rasuul ndam yëpp yaa ko waral may yëpp yaa ko amal xéewal yaa ko fi gën yow mër nga xaadimu rasuul manan la jaajëfe yow yaa tax ba lépp a ngi daw ñëw fi yow am yow Basiir jox ko sa lépp lii la danaa ko màggal bégal ko màggal mu sargal azza wa jalla ma Bamba mooy jëlee du sàkk ay déet na farlu kay waa من من sant Sëriñ Bamba nañ ci maase jërëjëfe borom Tuuba billaay baax du baaxa ba weesu baaxe kay del waaw waaw baax du baax ba weesu baaxe yaka baax baax du baaxa ba weesu baaxe waaw waaw laay lay la la lay lay la la la dëkkaal محمد رسول صلى الله النبي أمام رب كسب برم دام محمد رسول صلى الله النبي

ma candaam yaa di doomi jant ak weer ci kaw leeri leer ngay doxee amoo moroom ilaha illallah illallah la ilaha illallah ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah ha illallah doon wër ku te booba yawaa ilaala laa ilay la laala ay laawoo danu doon war Tuuba ndekete booba yawaa ilaala laa ilay la laala ay laawoo ba ngay baax dikku

illallah la ilaha illallah illallah oh. Oh. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah magal Serigne Khadim Lo ñun de yaanu mo yaanu mo sama illallah life. for that. dinga baal lay laay sëñ Xaadim borom ndaam wiiri wiiri jaari ndaam yow borom ndaam borom bax daati yaa ni mujje loo laay borom ndaam a raw eh, ku ko bëgg dinga raw lay laay nañu màggal borom ndaam wiiri wiiri jaari ndaam borom bax daati yaa ni mujje loo laay borom ndaam a yiw ko bëgg di nga yu lay laa ana soppay sëriñ xaadim loxo nee na ñun waa ndaam mun ci rag na ci roo xamee nanu leen jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Lamp sëriñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax ci bis bu màgg bi ci bis bu sell bi bis bii nga xamante ni sa jëmm ji rek moo xam li muy jariñ bés bii nga xamante ni dund gii ñu koy dund buñ la amul woon duñ ko dunde nii kon ñu ngi ñaan ci barke borom Touba sa borom yàggal la fi lool te nga ànd ak wér ndax kat ñun sëriñ bi dañoo amul lu dul yow gëmuñu it ku dul yow bëgguñu ku dul yow ndax lii nga xamante ni tey moom nga nu defal ci liggéeyul seexul xaddim bii wallaahi lazim na ma ko waxee woon daaw noonu yi rek la wëral péncu yi yu baree bari nag waaye lii ñuy dund fii bari waa na fooy dem doo ko fa fekk ndax laataa màggal gi di ñëw diggante bu gàtt mbokki taalibe yi ñu ngi woon ci liggéey bi nga xamante nii daaw nga taxaw fii daal ni liggéey boobu dafa war a mat jëm ci Serigne Mountakha Mbacké ñëpp nekk ci raj-raj loo googu ba taluñu sax dal waaye foofu lan fay jàngewaat lenn képp la mooy lan ñu waxoon ni ñu nit bu jubloo Serigne Touba na ne ca moom rek waaye lay jàppandal la nekk ci ay jëmmam loola Serigne Touba moo koy indil kon loo ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak ndax lii rek la Serigne bi bëggoon ci ay taalibeem ndax ñun ñëpp ci sutura Serigne Touba rek la ñuy dund waaye sutura Serigne tubaa jooju du ab yaafus du ci dund te ku amul fu ku la teg ci aw yoon doo ci dund ba àddunay tukki waaye moom mii daf noo wan yoon wi nga xamante ni fa lan war a jaar ba dund ci sutura Serigne Touba googu wallaahi barke borom Touba liggéeyu sëñ Touba bi xitma rekk la xitma mooy jariñ ak lu mën a doon li coow liy bari bari ak li muy rëy rëy rëy lu dul xitma mënta jariñ kenn dara te ñun kii ñu am woowuñu ci dara ñun sëriñ Xaadim Lo Gaydel woowuñu ci boppam du këram gumuy muy tabax du dara ñun xamuñu dara am lu dul liggéeyu sëñ Touba yow ku la woowee sëñ Touba na ndax la tax mu jaadu mooy bu nu jëloon ab menuisier jël ab mo ab tailleur jël defarkatu ferraille dugal leen ci am néeg bu nee menuisier menuisier ba génn bu nee ferrailleur ba ferrailleur ba génn bu nee tailleur ba mu génn la tax ma ne la ku ne la Sëñ Tuubaa ñun ñëpp dañoo war a nangu lool mooy saaboo boo xëyee sa dund ak sa métier lépp Sëñ Tuubaa la génnul Sëriñ Tuubaa yow amoo beneen dund bu dul Sëñ Tuubaa te lii rek mooy mbir mi gars na nu gën a góorgóorlu waat ci nii muy góorgóorloo ci digg mag ki ko xamante ni moo fi nekkal sëñ Tuubaa lu mu ko wax de def na ko lu ko wax def na ko ñun kay ñoo def suñu diggante ak moom nan leen ko noppal donte sax ñun xam naa ne mënuñu koo noppal waaye nag màgg nanu te sunu màgg li waaj li olof di wax ni peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbag yi sëriñ bi moo jàpp suñuy sunuy nan leen xool démb fi nu nekkoon ak tey jii fi nu ne nit ku ne nag war ngaa toog di xool sa bopp fa nga newoon démb ak fi nga nekkoon tey moom de lim ñu jàngal bari na bi mu naan ñu xam bamba jot na am bamba jot na jëfal ko war na nan jëf te sellal booba lii a taxoon ba muy wax naan nañ leen sax bu xel te wuti ahmadul xadim boobu xel lii a taxoon ndax koo xamante ni benn nag nga daan jënd war a ñaari nag mu xëy ni la fukki nag ngay ngay jënd loolu xel yam doon wax ñëw na waaye la mu waxoon ni it Serigne Touba képp ku ko liggéeyal benn mu fay la fukk Serigne bi wan nanu loolu kon Serigne bi ñu ngi lay nga yàgg fi lool te ànd ak wér ndax loo fi yàgg rek doyul sa dund gi barke Cheikhul Khadim am na njariñ ci yoonu murit am na njariñ ci lislaam waaye am na njariñ ci àdduna bii ñu ne ndax yow njariñal ñëpp nga wasalaamualeykum wa rahmatullah commission bi nag ñu ngi sant taxawaay bii nga ñu may ndax lii gëj naa am de ndax yow sab liggéey day mel ni saa bu gënee metti ci gars yi booba lay gën a jàppandal barke borom Touba ndax dina metti metti goo xam dootuñu tal sax laxasaay bi nu war a sol wala lekk gu nu war a lekk ndekete tegal nga nu loolu ci barab nañ dugg ci dali nagi dem na de ci sëñ Muntaxa waaye nañ dugg ci dali barke borom tubaa dal boo dem lam daan dunde lay dunde baa mu ëpp ko ndax daf wax ñu liggéey sëriñ Touba bii tayam gu ne day gàcceel démbam jàngiwul ko fenn fu dul ci moom wasalaamu aleykum wa